ko xamni dafa amone yermande ci bahime waxna ni na ni baynama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda bihi al'atash amna ben way bu don dox ci aw yon neena marmar wu tar ak ci ab teen daldi di nan bam nané ba genn gis ab xaj bo xamni ma ngay yelgat di lek bak ngiru mar neena waji da daa nga ah, xaj bi ci aw mar moko dal daldi jël aw botam nank ko dugg ci bir tan bi duy ko ndox daldi bi mu nan yàlla sant ko ca loole ba jéggal ko ci ay bakkaar noonu la waxee it ni jigéen ni ni yàlla mbugal na jigéen joo xam ni ci sababu am muus la ko mbugale ndax dafa téye muus mi joxu ko mu lekk joxu ko mu naan te bàyyiwu ko mu dem fori kon loolu danañ ci dégg ni lépp lu am aw res boo ko màndalee mbaa nga reggal ko payu yàlla nga ca